leeral xolam ci digganteem ak moroomam waaw eh, eh, jéggalu borom bi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa eh, rekk lu diisoon walla lu ñagasoon ci sa xol nga fexe ba dind ko ci kooku mooy yées maladie yi ñuy wax ni ay virus walla leneen waaw bu ko defee ñu fàttaliku ci suñu boroom ñaan ci barke mag ñi nu am ndax mag ñi épidémie daawu leen déranger parce que dañ ko daan um waaw am na nu ñu ko daan ume ci seen digganteeg seen boroom ba na mu waroon na